merci beaucoup monsieur le président balaa dara damay dama lay ñaanal gudd fan ni ko ñëpp ñaanal di ko ñaanal sama bopp di ko ñaanal sama njaboot ak njabootu mboole mu jullit waaye nag di beral itamit ñaan goo xam ne damaa bëgg mu dal son excellence la président Abdoulaye Wade sama mentor sama lépp ci ba ma juddoo ba léegi maa ngi ci gannaawam di ko gërëm nag ndax ku mën a def teraanga la doo xeex doo dugg kaso mu jox la 12 ans def la ministre tey nga toog ba mu daanu nga dem wëlbatiku di critiquer gestion loolu moom mën ma cee bañ a yegg mu monsieur les ministres monsieur les collaborateur des ministre ki ko wax dem na monsieur les ministres monsieur les collaborateurs des ministres ki ko wax dem na xamoon na dinaa ko tontu mon premier plaidoyer sera pour les femmes il faut qu'elle accepte à la, accepte à la terre et des magasins d'estockage pour la liquidation de leurs produits c'est important en ce qui concerne xëyum xale yi les gens les jeunes ne peuvent pas émerger pourquoi est-ce que vous avez des informations sur le financement de la DER on te donne cent 000 que tu dois rembourser en trois mois par 3 3500 francs par jour da nga koy abale ci Orange Money wala wari wala man je parle en connaissance de cause ci télé laay waxee te mën naa wax loolu kenn mënu liggéey boobu liggéey nit da nga koy lebal jox ko ne ko bu weer dee nga fay nangam bu weer dee mu respecté engagement am monsieur le ministre maa ngi lay félicité nag la taxe des bouillons c'est important est-ce que vous n'avez pas entendu les révélations de monsieur Malick mbay kii dit que bouillons yi dañ koy liggéey ak benn benn euh, produit bu tudd benn produit bu tudd glutamate sodium nee na c'est dangereux pour la pour la santé des personnes nee na dana provoquer bët yu metti dana provoquer tànk yu metti yi Sénégal gépp yi jàngat dana provoquer dana provoquer insuffisance rénale dina provoquer aussi goitre xaw ma ndax dégg nga ko wala dégguloo ko pour l'indemnisation des chefs de village je savoir si ils perçoivent les cinquante mille de l'ancien président Abdoulaye Wade wala dañ koy yokk est-ce que oto yi dañ leen koy mettre à leur disposition ndax joxoon na leen ko monsieur le ministre quelle est la solution des travailleurs de Cheikh Anta Diop qui parlent de lenteur qui parlent de lenteur des paiements des facture et encore le choix des contrat monsieur le ministre est-ce que vous avez entendu nos cultivateurs qui disent qu'on est en saison des pluies et ils ont des problèmes de semence et d'engrais. Monsieur le ministre, les observateurs de la pêche qui attendent toujours le rappel de leur salaire depuis plus de vingt ans monsieur le ministre bu ñu la waxee dëgg affaire bi metti na le panier de la ménagère foo ko takk weesu na ko monsieur le ministre vous avez parlé de sécurité quels sont les crit les critères pour ces sécurités mbaa ay bras ay bras gros bras ngeen dimbali ñu ci monsieur le ministre je me demande à quoi servent les vaccins parce que nous avons pris nos deux vaccins et à chaque fois que nous voyageons da disal sal amatuñu nuuru bakkan amatuñu paxum gémmiñ à chaque fois qu'on voyage danañ la tester laal sa bakkan laal sa gémmiñ fa nga demit booy ñibbisi on vous fait la même chose léegi damaa bëgg euh, vaccin yi lan mooy seen lan seen utilité monsieur le ministre je félicite les agents de la santé à travers le ministre vraiment def nañ liggéey bu am solo ci Covid 19 bi ba tuwaar fakal la macha allah Sénégal xaw na cee tane. may nuyu ñëpp di sant ñëpp di wax ne may nit jën wan ko nu muy nappe ba am jën moo ko gën damaa bëggoon lii au lieu ñu jox xale ay financement ñu defal leen ay usines ñu di ci liggéey di ci xëy di ci gont di ci mas seeni wéyjur di ci mas mais xaalis koo ko jox te amulu dépense. wala nga jox ko ko te amul fu mu jëm da koy da koy lekk da koy lekk bor bi topp ko muy fay maa ngi leen di gërëm di leen sant wasalaam. je vous <coughs> monsieur le président monsieur le président de l'Assemblée nationale messieurs les ministres mesdames et messieurs madame et messieurs les collaborateurs des ministères collègues euh, monsieur le ministre affaire euh, loi de finance rectificative bi je vais l'aborder sous l'angle de la vision au préalable euh, ma signaler quand même je l'avais fait à la commission des finances le gros village de Néorane qui fait plus de 7000 habitants qui n'a pas de courant qui est entouré de village euh, de 500 habitants même moins qui ont le courant ils ont l'impression de vivre une injustice Bon, j'en parlerai à votre collègue en charge de l'électricité, mais puisque vous êtes là et que vous vous occupez du budget, je vous en parle. Euh, bu loolu passé monsieur le ministre euh, en fait ça va très difficile pour vous de régler les problèmes parce que vous ne voulez pas réorienter la vision que vous avez de l'économie Serigne Mboup est un patriote sénégalais. Il est le président de l'Union des chambres de commerce du Sénégal. moo wax devant le président de la République trois milliards chaque année qu'on importe en produits alimentaires, en cosmétiques, en ceci, en cela, des produits qui peuvent être réglés au Sénégal, qui peuvent être cultivés, qui peuvent être sous forme d'élevage ou la pêche. etc. 3 000 milliards. Si cet argent-là restait euh, ici au Sénégal, euh, on n'aurait pas un problème d'emploi. Euh, le même Serindoup à rappelé que l'essentiel des beaucoup de marchés publics qui sont réalisables par des entreprises sénégalaises sont gagnés par des entreprises étrangères. C'est inimaginable en Chine, c'est lui qui le dit, et, et c'est vrai. Au Maroc, en Turquie, en France et ailleurs, l'argent public que des entreprises étrangères raflent au détriment d'entreprises nationales. Comment est-ce que vous voulez avoir un, de l'emploi avec ça Ce n'est pas possible. Alors, cela dit, Serine a, a, a, a montré que si nous réorientions un certain nombre d'options, On pourrait créer 5 millions d'emplois en trois ans. Et il a raison. Évidemment, si cette option avait été prise, les jeunes ne mourraient pas euh, dans l'océan Atlantique et en Méditerranée. Et évidemment, on n'aurait pas eu aussi probablement les émeutes de mars dernier. Euh, monsieur le ministre, si vous aviez une bonne vision Le président Macky Sall, en allant au Fouta, aurait probablement pris le chemin de fer entre Saint-Louis et, Matam. C'est ça la vision. Le fleuve Sénégal aurait pu être régulé. Il aurait pu prendre le bateau pour aller à Matam. C'est ça la vision. Le fleuve Sénégal déverse 9 milliards de mètres cubes d'eau douce dans la mer tous les ans. Pendant ce temps, la, le PAM est la Programme alimentaire mondial. Tous les ans, on a la disette, l'insécurité alimentaire, parfois la famine entre euh, Canel, Ranerou et Matam. Ce n'est pas de l'invention. Donc, je pense franchement qu'il ne faut pas qu'on politise à la façon politicienne des questions de fonds Euh, C'est pour cette raison, euh, je vais terminer en disant, Monsieur le ministre, qu'à mon avis, Et sur toutes ces questions, il y a des études. Hein. À mon avis, euh, il, il, faudrait que vous revoyiez, si cela est possible, bien entendu, vos orientations en mettant l'accent sur le secteur primaire. J'ai entendu un collègue dire tout de suite, ah oui, toutes les semences sont en place. Dès qu'on parle d'hivernage et d'agriculture, il y en a qui parlent arachide. Arachide, arachide, arachide. Et vous croyez que vous pouvez vous en sortir avec ça. C'est nul et médiocre. Je suis désolé. Monsieur le Président, le temps passe, je vous remercie.